Abdou Khadre Ndiaye maa ngi lay nuyu. madame Moreau maa ngi lay fay. Abdou Khadre Ndiaye nga nekk spécialiste en relations internationales déjà naka nga apprécier discours bi nga xam ne premier ministre du Sénégal amal na ko ci kanamu euh, vice-président gambien bi di Mohamed Diallo moom nag nee na euh, Sénégal taxaw na temm ngir gën a euh, bokk ci CEDEAO dëgëral ko mais aussi réew yi nga xamoon sax génn nañ si ñu xool naka lañuy dellu see ci biir CEDEAO maanaam booloo mooy euh, doole mu nekk discours boo xam ni bees na wala xaaruñ ko woon ci Ousmane Sonko même bu fekkente ni euh, Diomaye déjà côté boobu la joxoñ waaw li ma bëgg la xamal mooy euh, il faut nit ñi comprendre diggante relation Sénégal ak Gambie kañ la commencé fu mu jaar ñu mën a xam fan la accès maanaam ci histoire Sénégal li mu amee indépendance am ci 1965 juste cinq ans après dafa am accord défense bu am entre Sénégal ak Gambie accord défense boobu moo permettoon opération Fouta Taba 1 ak opération Fouta Taba 2 am boo xoolee actuellement ki nga xam ne si moo ne chef d'état-major des armées CEMGA ñaan ko le général Mbaye Cissé am na benn livre bu mu bindoon boo xam ne am naa chance lire ko ci wàllu euh, accord yi amoon ak Sénégal bu permettoon Sénégal defoon opération Fodé Kaba 2 Fodé Kaba 1 mi ngi amoon ci Senghor Fodé Kaba 2 mi ngi amoon ci Abdou Diouf à partir de 81 bi nga xamante si ne président bu naan Diawara dafa demoon benn voyage doon seeti famille am far ñu enlever ay nit ñu nekkoon ak moom xawoon occupé palais ba loolu na wax opération Fodé Kaba 2 ba nga xam ne ci accord yooyu amoon Sénégal yi ma doon wax sànq yi amoon 65 la Abdou Diouf wax ñi fi newoon yor wàllu SEMGA beeg militaire yeeg euh, GIGN yeeg yëpp ñu organiser wu boo xam ne si ne dañoo waroon a intervenir en Gambie pour permettre euh, Kukuy Samba Sagna mu libérer palais bi pour ñu mën a xàllal buntu président Jawara mu jëlaat nguuram loolu Mbaye Cissé mii nga xam ne moo nekk Sénégal ba fii may wax ak yow def na ci livre boo xam ne boo ko liiree expliqué na ci biir sax ni nga xam ne si ne jàmbaar teg Sénégal seen armée wane nañ ko ci opération yi les jàmbaar sut nga xam ne si ñoom dañoo waroon dem defi korité jënd seen i xaftaan euh, fayeeku seen i salaire waroon dem seen kër ñu def leen coup de téléphone na leen mënu leen dem seen kër il faut ngeen intervenir Gambie loolu sax boo ko liiree sa yaram day daw pour war ne Sénégal arméem wax dëgg yàlla armée bu exemplaire la boo xam ne sa yaram day yëngatu boo ko liiree maanaam naa sens livre livre ba xam sa lu bari donc Sénégal ak gambi ci jamono yi Ablaye Wade aussi amoon na relation yu heurté woon entre euh, Yaya Jammeh ak Ablaye Wade ba Ablaye Wade bëggoon a yemale Yaya Jammeh ci Macky Sall aussi intervention amoon na bul fàtte ne Yaya ak euh, Adama Barrow bi ñu defee élection Adama Barrow bi mu gañee yaay Jammeh dafa bëggoon a foq ci nguur ga léegi Sénégal bi mu amee mandat CEDEAO dañoo intervenir ñu libéré leen euh, jox Barrow nguur gi relation Barrow ak euh, Macky Sall di relation bu rafet Sénégal nag kilifa yii fi ñëw in fi ñëwee ñoom tamit xëy na am na discours bu ñu yoroon boo xam ne nit ñi mënuñu koo comprendre mais ah, discours politique discours politique la mais boo faroo aussi réalité économique réalité géopolitique y a réalité diplomatique moo lay tënk réalité diplomatique boobu tënk état du Sénégal moo tax ba Bassirou Diomaye Faye conformément ak euh, trajectoire euh, diplomatique bi na am mu ne dafa créer ministère des de l'intégration d'ailleurs parce que loolu amu ci woon mooy dañuy fexe ba réew yi nga xam ne si ñoo jage Sénégal rawatina ñu nekk frontière ak Sénégal bu fàttali ne Babacar Justin Ndiaye analyse am day wax Sénégal benn banaan la bu nekk ci kii bi benn banaan la presque bu nekk ci biir Sénégal mais loolu waxin la rek dafa bëgg a wax ne ba Séné Gambie ak Sénégal kenn mënu leen a xaajale parce que olof Ndiaye naan bañ ak làmmiñ ñoo dëkk donc Ousmane Sonko li mu xalaat ak li mu wax lu yanu la parce que loolu conformité la par rapport ak une politique euh, diplomatique boo xam ne c'est basé une diplomatie proactive ak une diplomatie économique te xam nañ ne Sénégal ak euh, Gambie frontière bi nekk foore bi mi ngi fi euh, affaire coupe de bois bi ñàkk yàgg naa nekk loo xam ne si ni euh, lu doy waar la. Mm. te environnement ñu nekk ci monde boo xam ne il y a ce qu'on développement durable boo xam ne warut a compromettre les générations futures et que Sénégal aussi dafa ratifier ay convention yoo xam ne dañoo war a préserver environnement donc coupe de bois bi lu a xoolaat la moo tax Sénégal ak Gambie depuis 1972 am na benn commission sénégalo-gambien bu mixte boo xam ne eh, ñoom ay action conjointe lañu def pour mën a lutter contre ces genres de de pratiques qui sont qui par rapport euh, au, développement de l'environnement mm. donc Ousmane Sonko euh, discours bi mu def intervention bi def day s'inscrire ñu ci logique boobu pour ñu bëgg a préserver environnement bi préserver la la faune, la forêt et tout ça. Euh, Abdou Khadre euh, ñu daal di convoqué ambassadeur ukrainien bi nekk fii à Dakar ministre des affaires étrangères et de l'intégration amal ko Yassine Fall gannaaw bi ñu publier benn vidéo boo xam ni ñu ngi soutenir wala ñu ngi rafetlu attaques yi nga xam ni ñoo am ci fin juillet bi ci euh, contre armée malienne ak groupe euh, pro militaire russe Wagner ci foofule ci réew mi naka nga gise mbir moomule ban jàngat nga si am. est-ce jàpp nga ne euh, décision wu Sénégal lu baax la wala baaxul. xam nga nit dafa am lu ñuy réer mbir mooy ci wàllu li naan relation diplomatique entre deux pays dafa am principe bu ko tënk mooy réew bu nekk yaa moom sa bopp jëflante kum réew waaye réew bu nekk soo demee nga euh, am ambassade ci réew donte xam na ne y a ce Euh, les accords ak euh, entre deux pays accord bilatéral ou multilatéral mais ya y a aussi la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et les relations consulaires même si bu fekkee xam na ne rupture relation diplomatique maintenant taxul rupture relation consulaire am maanaam Sénégal ak réew bu mën di jëflanteel dañuy respecté respecté joxante cër loolu du signifie aussi ne yow boo amee sa ambassade ci réew am nga droit sa ambassadeur aussi xëy wax lu ko neex wala mu xëy bind lu ko neex wala mu xëy wax loo xam ne mën naa indi rëq-rëq diggante réew ak réew te yow nga bëgg a defar defar sa diggante ak sa réew tax ngay compromettre euh, réew ak réew maanaam ci li ma bëgg a wax mooy Sénégal ak Ukraine dañoo am ay relation de telle sorte que boo xoolee position bi Sénégal amoon ci même bu doon jël ay sanctions ci benn réew parfois da ngay gis ne conseil de sécuté état Sénégal day s'abstenir lu tax muy s'abstenir parce que day wane ne euh, réew boobu ngeen bëgg a sanctionné man am na lu ma set moom parce que buñ fàtte ne ci wàllu euh, Covid bi mu fi amee Sénégal amoon na problème mu parce que monte fret bi dafa amoon affaire bu frais transport yeeg yooyu parce que Sénégal day jënd ay lu mel ne urée engrais yooyu ngay jëfandikoo ci wàllu tool yeeg yooyu ci wàllu euh, jënd ko ci Ukraine ak Russie ci réew yooyu da koy jënd est-ce que bi Russie demee attaqué euh, Ukraine est-ce que Sénégal dafa génn rek condamné wala mu wax lu garaaw boo xoolee position dafa xaw a lu mel na neutre parce que réew yooyu day jëflante ak ñoom du bëgg rek gaaw dem faral benn réew kon ambassadeur bi ñëw def benn euh, pondre benn texte ak vidéo yooyu mu mel na day euh, d'accord ci li xew te ñun est-ce que ñun position boo nañ ci am kon buñ seetaanee te ponduruñu benn texte pour euh, dénoncer loolu day day nuru lu ñaaw wala nuru lu mel ne par parloo ko xam ne si ne euh, ñun junte dara kon dañoo war a war a rappeler ambassadeur Ukraine bi nekk Dakar pour wax ko ne ko attention fii nga war a yem lii waroo koo def lii d'accord ñu ci lii di suñu position loolu mooy diplomatie te d'accord naa ci kan aussi voilà Euh, peut-être euh, dernière euh, question ñu laaj la si panafricanistes yi yi nekk si peut-être sous région bi comme maliens yi par exemple gis nañ ñuy commencer di manifester au niveau de la diaspora parce que nee na dañu am déception ci politique ba nga xam ni Bassirou Diomaye Diakhar fay moom la teg parce que ñoom dañu promettroon rupture avec la France bu ñu jëlee réew mi naka nga gisee mbir moomu am na ci ñoo xam ne dañoo jàpp rupture mooy nañ ñëw tëj ambassade France nañ ñëw intérêt France yi fi nekk ñu compromettre nañ ñëw France euh, langue bi fi nekkoon ñu jële ko fi nañ ñëw français fa bi nañ ko fi jële mais loolu ku comprendre ne rupture loolu man jàpp naa ne ñoom Ousmane Sonko li ñuy jàppe rupture seen xalaat rupture nekku loolu kon dès la panafricaniste yooyu gis-gis boobu ñuy gis ak gis-gis bi y problème beneen bi mooy Bassirou Diomaye Faye bul fàttali ne deful coup d'état élection la dem pour la première fois ñu ne opposition def élection jàll premier tour kon peuple sénégalais bi ñoo leen choisir en toute souveraineté kon ñoom ils ont une légitimité politique ils ont une légitimité historique kon yemuñoo réew yi nga xam ne sine ne alliance des états du Sahel nan nekk ñoom am na luñ mooy ay poussés ay coup d'état moo fa fii nag coup d'état amu fi comme ñoom ni ñuy ak ni ñuy xalaatee ak vitesse de réflexion bi nekk déjà état alliance des états du Sahel boobu euh, ñi ngi ci ab confédération te beneen bi aussi ñi ngi bëgg a créer monnaie kon ñu nag ñoom bokkuñu gis-gis bokkuñu parce que réalité politique bi même bu fekkee si xalaat bi mënoon naa bokk ci bi ñu ko doon waxee ak situation bi parce que ñoom bi ñu wax président ya fa nekk ils ont été élus démocratiquement ñun président yi nii moment bi ñu wax ñoom ñee fa nekk déjà boo xoolee Mali euh, ak Niger ñooñu ñëpp population ba ña ngay commencé casse yenn côté yi surtout les leaders politiques pour que ñu organiser ay élection parce que bul bul ña fa nekk ba léegi jusqu'à présent ils n'ont pas une légitimité de droit peut-être ils ont une légitimité de fait maanaam légitimité boo xam ne ay population ñoo mën a ànd ak ñoom wala discours yi def ñu ànd seeg ñoom ak yu de droit amuñu ko maanaam boo xam ne dañoo jëm ci urne gagné parce que le pouvoir doit appartenir aux civils mais le pouvoir ne doit pas appartenir aux militaires donc c'est une légitimité de fait mais c'est pas une légitimité de droit d'autant que Bassirou Diomaye Faye une légitimité de droit la am ak fait il a une légitimité historique et une légitimité aussi boo xam ne c'est politique donc mënta yem ak ñoom euh, gis-gis mënta yem ak ñoom benn mënta bokk ak ñoom benn euh, poursuite politique. merci beaucoup Abdou Khadre Ndiaye ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. maa voilà ñuy fàttali ni Abdou Khadre Ndiaye spécialiste nga en relations internationales jërëjëf. merci.